man dal len len la ci gën len la ci xam sa colère mën nga ko exprimer nenen nenañ carte moy fal tout simplement donc comme carte la xaaral ba élection ñew muy muy février di di di di décembre ko faral mën nga ko faral nga voteel ko mais yak moom man ben fleur bu ndaw ben fleur bu ndaw boko yaké sax man dama lay méré tout simplement lolu ñu yak ñun ñoo ko moom nañu yak yàq yàq baaxul ñi président yi fi succédé wu yëpp carte moo leen fi kii mais du lii tout simplement n'est-ce pas man nag naqari na ma trop tout ça loolu loolu daal moo moo doon sama sa sa sama mot sama mot vraiment désolant euh, maître Diagne ñu lay nuyu euh, di la jaajëf baax a baax alors tey ñu gis situation bi nga xam ni moom moo fi am fii ci Thiès gannaaw ba nga xam ni euh, askanu Thiès woote nañ ngir li nga xam ne moom moo xew ci réew mi njiitu réew mi am dogal mu jëloon mu naqari ñëpp mu waral euh, mbir mi am tay ji euh, situation bi man jàngat ngeen ci am yéen. Euh, mais jërëjëf mais nek diko nakarlu rek parce que ku gis ce qui s'est passé ici tout à l'heure ci promenade de Thiès Thiessois bi nga xam ni lii du yoon. c'est une situation qu'on aurait pu éviter tay ji on me dit que Thiès partout 10e ville fépp xalé yi ñu ngi tal mais lolu mënoon nañ ko éviter parce que on a appelé à une manifestation pacifique ñu ni ñepp ñew à 15 h kuy ñew nga sollu wéx kuy dem jumaa nga sollu wéx après ñu dajé fi mais ñëw excès guñu sax force l'ordre yi jël sen grenades yi nga xamanteni mais grenades yi man dama ni les Nations Unies dañ ko wara interdire parce que c'est des armes extrêmement dangereuses pour personne yi nga xamanteni dañu am yenn fièvre yi ay asthme ak yu demee non li mëna leen ray la première action que j'ai menée tout à l'heure moy évacuer une fille mak euh, dervis mi jàkkaarloo man den ak man ñoko ko hôpital régional yaayam la doon waxal ni légui xalé bo xamni yoonam nekku ci manifestation dafa jangi wacc nokki gaz euh, grenade yoyu dem hôpital alors que on nañu éviter et puis on lance un appel aux forces de l'ordre wax la ni ñun duñ seen ay adversaires. duñ seen ay Le xeex bi ku jàpp ni yow concerné c'est parce que tu n'as rien compris xeex bi lenn rek moo koy arrêté que le président de la république nga xam moo jël décision renvoyer les élections annuler les élections sax ce laay laay wax te xen xamul ba euh, élections de revenir sur sa décision parce qu'à partir du 2 avril lui il n'est plus président de la République du Sénégal donc pour mu dugal réew si ci Fanny connaît yi sénégalais boo yeewoo sa télé yi amul télé booy Al Jazeera CNN BBC France 24 TV5 hein euh, Euronews télé waxatuma la nag ak ñu ñu le président Macky Sall au nom de la CDAO, qui est mun la da nga coup d'état dañ lay sanctionné dañuy mais l'armée sénégalaise est en Gambie bataille. Le président Macky Sall moo fait fa parce que a un forcing mais lui aujourd'hui il est en train de faire un forcing donc il faudra que la CDAO, euh, l'Union européenne les États-Unis nous avons des mesures sur le président Macky Sall et son régime Nous def comme nous régimes def régime yi nga xam ne d'état parce que ce qui est en train de se passer c'est un coup d'état euh, constitutionnel et bu qu'on ait def coup d'état constitutionnel rek mais nous nekk brimer le peuple Nous avons ñu jàpp ku yëngu ñu nous ñu gis gendarme nous ñu def à Dakar nous gis ni ñu les journalistes aujourd'hui avons des policiers nous ñu def nit à Thiès professeur Daoud Ndiaye bi muy à la TFM mais comment des gens yo xamanteni super entraînés, super armé lolou du ngora xam nga force de l'ordre tu super entraîné super armé nga un civil désarmé bo russe na sol parce que dang sol au nom du peuple sénégalais yoon di le protéger la tax nga japp ko diko le ta fayoul lolou bo jappé ni ngóor la da ngay nax sa bop lolou du de mais mais vu situation bobu bo don décrire euh, démocratie sénégalaise tay décrire. mais la démocratie sénégalaise qu'est-ce qui reste de la démocratie sénégalaise. qu'est-ce qui reste La démocratie, ce n'est pas seulement des de, des élections. La démocratie, c'est beaucoup plus profond. Les des générations avant nous. Donc, on peut comprendre qu'un président qui est né après les indépendances, nous fait que nous liguons les moom mu ñëw bafoué loolu lépp Senghor ñëw na fi jall Abdou Diouf ñëw jall Abdoulaye Wade ñëw jall Macky Sall ñëw ba ñi mu ngi jall ci njekk mu jékki-jékki melni ku ñu liggéey indi Sénégal duggal ko ci goute gi li mom du ci génn parce que gis nañ euh, euh, enseignants yi di grève nit ñi naan enseignants yi seen yoon nekku ci woon ñu grève mais c'est parce qu'ils ont rien compris xeex bi xeexu ñepp la lii c'est pas une bataille politique c'est une bataille pour la survie de la démocratie c'est une bataille pour la survie de la justice c'est une bataille pour remettre le Sénégal sur les rails du développement et de la démocratie. Donc nous appelons toutes les forces vives de la nation à venir se joindre à la bataille. Nous du venir au mais avenir au Sénégal moins que sénégalais yi xeex ñi fi fi président bi di ñëw a dialogue mon mooy nekk ki nga réconcilier les sénégalais entre eux parce que sénégalais il y a de profondes fractures dans la société sénégalaise da ngay dugg ci ay kër ñiy gens, yeewi ont bokk bennoo ñiy bokk des du ñu wax du ñu yeewoo du ñu nuyoonte sax te loolu ñii ñoo ko fi indi njiit yi fi des ñoo fi indi c'est-à-dire que on a commis l'erreur de mettre le pays entre les mains de personnes qui ne peuvent même pas gérer une ASC de personnes qui ne sont pas conscients des enjeux démocratiques républicains, de la situation de l'Afrique, de la situation du Sénégal dans la sous-région, nous ceinturons nous par des pays qui ont un régime militaire, un régime dictatorial. On a beau être le pays de Cheikh Ahmed Bamba, on a beau être le pays de, Sidi euh, Alaj on a beau être le pays de Sénat Limamboulaye, mais on n'est pas à l'abri du chaos qui a été ni dans d'autres pays donc le président de la République la raison mu a Li, les gens ne s'arrêteront pas de se battre. Et d'autres nec vendredi 15h. Ce sera tous les jours à la promenade de Thiessois. Nous appelons tout le monde, tous les jours à la promenade de Thiessois, jusqu'à ce qu'il recule sur sa décision. Mon nom est prêté à serment. Serment à Amatoul Ndjering. Je diriger état du Sénégal heure bu ma neexee yokk mandat heure bu ma neex wàññi mandat heure bu ma neexee tas élection heure bu ma organiser ko li amul ci ben rew té mom ci bopam warna xam buñ ko defoon ni du jot ci ben nguur. moom ci boppam war na xam ne lii dafay jeex moo tax dañ koy ñaax nekk na delloo si xelam fonctionnaire ak complotiste yi nga xam ne dañ koy jàppale naan ko yaa yor doole yi yorul benn doole bu dee armée kese gendarmerie ñoo des si ginnaaw mari yoratoo doole doole boobu yàlla ko moom république Sénégal moo ko moom président Macky Sall war na xam ne lii mu def rafetul ñun ci suñu bopp mënoon nañoo toog ne bëgg nañu

képp koo xam ne état nga nekk nga xam sa bopp xam li ngay xaar war a def carrière ci état ñu ngi lay ñaax ne na nga bàyyi bu baax ci li ngay def na nga bàyyi xel bu baax ci li ngay def bés boo fi jëlee acte o nom d'un président et d'un gouvernement illégitime wala nga administré nga liquidé wala nga ordonnancé wala nga fay dañ ko waxee foo xam ne kenn du la fa génne dañuy wax ñii nga xam ne dañuy jàppale président Macky Sall ci li mu nekkee nañu ko bàyyi. ndax président Macky bu demee ñoom ñoo fi des te buñ fi desee dinañ ko diggaale askan bi. fi mu ne daal euh, naqar moo am naqar moo am gis nga population Thiès ni koy wane amul benn mbedd bu des xale yaa ngi génn di wane di naqarul lii nga xam ni euh, la président Macky Sall jël na teg ko ci taabal ji te nga xam ni daf ko war a retirer. daf ko war a retirer ndax tegewul ci yoon constitution waxu ko ko amul benn droit ci jël.